ci suba dañoo tàggee ki nga xamante ni mooy Ahmed Bachir Kounta nekk ko xamante ràññee nañ ko ci ci euh, famille Kounta waaye tamit ku ràññee woon ci presse bi nekkoon journaliste euh, ci RTS waaye avant moo nekk RTS nekkoon na ci rajo bi rajo Saint-Louis bi euh, bokkoon na ñoom Golbert Diagne ak nga xamante ni ñoo nekkoon ancien journaliste yi bokkoon na ñoom liggéey mu nekk ko xamante ni kilifa diine la en même temps nekkoon tamit koo xamante ni dañ koo ràññee woon ci këru diine ci tarixa boo mosoon a dem rek da ko fay fekk da yaakaar ni kii fii la bokk moom lañ ñu tey ji ci suba ñu fam jëm yalla nako gënal fam mu jóge foofu ci barke yentan alayhi saatu wa salam ñam quelques témoignages yu ñu war wax ci mom inshallah rabbi mais ginaaw lolu damay nuyu oma sami nga xam mom la bokal plateau bi ko alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alqail fi muhkami tanzilihi minha qalaqnakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taratan uxra والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه wa sallam wa ala alihi wa taslima mbokk yi ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar yéen ñi nga xam ne ne baaxoo di seetaan seen Elvision Média comme ni ko soxna Sala waxee mu nekk tiis boo xam ni bu dal ci jullit ñëpp la rawatina jullitu Sénégal nga xam ni suñu wayjur suñu kilifa mën nañu wax ne suñu sëriñ tamit moo làqu génn àdduna nga xam ni Euh, moom daanaka bàyyi woon na ko xel bu baax a baax a baax. Mhm. ndax bëri na ci ay kàddoom li naan wax naan walakum fil ardi mustaqarrun wa mataaun ila xiin mhm. euh, yàggul dara bi nga xamee ni Serigne Cheikh Ahmed Tidiane génn na àdduna mu ngi génn di ko wax naan euh, jamono ji dañ fiy sax rek mhm. duñ fi sax dañ fi def quelque temps rek dem kon kooku tey dañ bëgg a waxtaane muy suñu bàyyi suñu maam Ahmed Tidiane Bachir Kounta mu koy ñaanal yàlla fee mu tëdd yàlla na fa yàlla sotti ay leer yi ci barke yonent bi sallallahu euh, mhm. mhm. bi sallallahu euh, euh, mhm. avant maka dama ne woon kii Tijaan la mais porte parole Kounta la lan nga ñu mën a wax ci moom ci këru ci këru diine yi ni mu leen ni mu leen jàppante jàpp ni mu jàppante woon ak ñoom. Mm-hmm. waaw loolu dinañ sawar ci wax ci. Mm-hmm. ndax euh, xam nañ ci moom lu baree bari loo xam ni donte ke Euh, xamuñ ci moom lépp waaye xam nañ ci moom daal euh, ak yaatal. Mm-hmm. ndax euh, mi ngi juddu ci famille bu ñuy wax famille Kunta. Mm-hmm. di xaadar. Mm-hmm. bokk ci famille bi tamit nekk ci kilifa yi. nga xam ni moom dafa gimmi rek nag xam sëñ Babacar si. ndax lu bari da ko xam sëñ Babacar ndax sëñ Babacar moo ko yar. bi mu nekkee ndaw la ko sëñ Babacar yar mu ànd ak. Euh, njabooti Serigne Babacar di ànd ak ñoom. Mhm. ak ñoom Serigne Cheikh Ahmed Tidiane. Serigne moom dafa nekkoon koo xam ni kenn la. Mhm. ci Sénégal mën naa ko wax. Mhm. comme ni nga ko waxee ñu bëri jàppoon nañ ni sax ci kër Sidi Hadj Malick la bokk la yaroo. Euh, ñu bëri jàppoon nañ ni Tidiane la ndekete ab xaadar la. ab xaadar la loolu dafay wane ni maanaam moom jullit moo am solo. man taalibe Cheikh la kii murid la kii xaadar la kii laayen la. ndax balaa ngay nekk. Euh, taalibe. Mhm. benn taalibe da ngay nekk jullit ba noppi. Mhm. jullit mooy première. Mhm. jullit nag. yonent bi saa salaam moo ko wax mu ne al muslimu aquhul muslim. jullit jullit mooy mbokkam. kon moom boole boobu mu doon def. di boole kër diine yi. boo Touba. Euh, euh, yàggul ba mu fa demee ci xalifa général bi moo ko recevoir ko. loolu mu koy def di ko def fépp nag. comme ni nga ko waxee. mu nekk koo xam ni liggéey bi mu nekkoon. muy journaliste nekk na ci ba jóge ci kenn mësu ko déggal lu ñaaw. te loolu dafa am solo mm-hmm. te yàlla dafa wax ni mm-hmm. yaa ayyuhal mudassir qum fa anzir mm-hmm. waaye nag wa rabbaka fa kabbir ba siyaabaka fa tahhir yàlla wax ci man su may firi aaye boobu damay damay wax ni bépp journaliste war na jàng aaye boobu wala mu jàng saar boobu Ah, yaa ayyuhal mudassir qum fa anzir mhm. yàlla dafa ne yow mi nga xam ne yow yaa yow yaa nekk sa biir néeg mhm. wax ak yonti saasan yow mi sàngu mhm. jugal nga waare ji nga jox nit ñi information waaye nag boo jox nit ñi information war a baka fa kabbir na nga ci na nga ci seet sa diggante ak sa borom waaye wa siyaabaka fa tahir na nga ci laabal sa xol ba doo iñaanee nit wala nga am ak nit problème ba tax ngay wax ci deram loo xam ni lu ñaaw la moom nag kenn mësu ko dégg ci loolu nekk na ci daanaka millier journaliste du tolloog mhm. cinquante ans. yàgg na ci. Euh, cinquante ans mel ni rajo bu nekk Saint-Louis fa la njëkkee woon. nekkoon fa journaliste sportif nag. macha allah gis nga kon maa ngi lire sànq rek ñu ni booba soixante onze ba léegi. Mhm. soixante onze ba léegi mu ci mhm. journaliste yi. nekkoon ci yeneen ak yeneen ak yeneen. Euh, loolu te kenn mësu ko dégg ci lu ñaaw. te yenn saa yi nga dégg fii Sénégal journaliste sàngam fay ko xaalis bi. def dafa boole woon yu bari. Mm-hmm. nekk di liggéeyal réewam. Mm-hmm. waaye di liggéeyal diina ji di liggéeyal tarixa mm-hmm. nekkoon na koo xamante tamit euh, en même temps ni mu nekkee woon journaliste sportif ba mu ñëw euh, RTS. xam nga xibaaru olof yi la doon def noonu. mais niñ ne li mu mënee olof noonu la mënee woon français. xam nga ni mu mënee français noonu la mokkalee diineem tamit. ndax moom doomu daara la. doomu daara moom lépp lay. lay boo yaroo ci daara ndax moom ci daara la yaroo Serigne Babacar ku mu ku mu jàng euh, nga nga yaroo andoo ak ñoom Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si mm-hmm. ndax boo dégloo ay kàddoom li mu wax ci moom lu ci li mu jàng mi ko jàngee ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum mm-hmm, mm-hmm. da wax lu bëri day wax ni Serigne Cheikh jàngal na ko loo xam ni yaakaarul woon ni dana ko xam ci àdduna kon moom euh, laa xarwa wa du ñu wax ni du ñu yéemu ci ni moom li mu am war na ko mën a am du ñu yéemu ndax doomu daara la doomu daara bu nekk foo nekk yaa fa war a raw. te moom dafa nekkaloon daara ji. ci mm-hmm. diine ji. Mm-hmm. nekkaloon daara ji ci ci jamono ji. Mm-hmm. ndax boo demee ci wàllu jamono. boo ko fekkee nga yaakaar nitu jamono kese la. waaye boo ko fekkee ci diine ji. nga ngay jàpp ni kii nitu diine kese la. loolu nag. ah yonti moo ko wax. fa amal li dunyaaka ka annaka laa tamut. waaye wa amal li aaxiratika ka annaka tamut xadan. yonti bi nee na. liggéeyalal sa àdduna ba mel ni yow doo dee. waaye liggéeyal sa àllaaxira ba mel ni suba ngay suba ngay faatu te loolu nag loolu nekkee woon ci dina ji rawat na mhm. rafetal gi mhm. rafetal gi diggante tarixa yi mhm. te loolu dafa am solo yénti moo ne yàllaa ko wax innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum waaw yàlla nee na jullit ñëpp ñu gëm ñëpp ay mbokk la dañ koy rafetal kon ki nekk seen biir nag di rafetal kooku jullit lañ koy jàppee. jullit pire lañ koy jàppee. moom moom dañ daan def président de la république depuis Senghor. ba kii fi mujjee nekk di Macky sàll moom da daan def bu Musaara joxe discours bi. ci këru diine yi en France lañ. mooy traduit mu mel ni kon kooku mënoon na li muy def ba di muy génnee àddina nii moom boo ko ci la gënoon a mën métier journaliste boobu xam moo nekkoon doomu daara la après en même temps yor boppam parce que doomu daara doon man doomu daara la toog ñu la ñu di adiyee moom métier doxewul woon noonu moo dafa wane dafa nekkoon ci métier boppam mu nekk métier journaliste en même temps nekk doomu daara mu nekk koo xamante ne mooy Cheikh Ahmed Bassirou Kounta euh, jóge fii ñu koy ñaanal yàlla yàlla xarit ko àjjana te xëy na suñu oyof ci kawam euh, yàlla sa teg maam ja soppeem ba Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam euh, mi ngi noonu ko xamante tamit ku ñu bàyyi woon xel

jullit lay moom chaque jour rôle jullit la doon dox doxul rôle tarixa maanaam doon ke danoon doxal tarixaam bu baax sax ndax ku ko fekk njaasaan xam ni kii taalibe njaasaan dëgg la ndax ku dem bañ bañ bañ la nga nekk porte parole euh, de njaasaan kooku xam nga ni kon fa nga nekk yaa ngi fay doxal sa waar waaye nag dafa am lu jiitu loolu lépp muy jullit gi te moom loolu la jiitaloon jullit mooy ki nga xam ni mooy dox ci diggante jullit ñi te dafay def moom chaque jour li yonent bi daan wax ndax yonent bi moo ni bu nit su faatoo na ngeen wax ci moom njekk te ngeen noppi wax leen ci moom lu baax moom nag li mu daan doxalee mooy ah, man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yaqul xayran aw li yasmut xaalis boobu ah, maa ngi nuyu Samba Makhtar Sylla ah, di ko nuyu di ko ziar moom tamit dama ko dégg mu firi ko bu am solo te wax nii man kaana yu'minu billaahi ñu bëri dañ koy firee ni ku gëm yàlla gëm yonent waxal lu baax da nga noppi moom mu ni déedéet ma ne ko lu tax mu ni ku gëm yàlla ku gëm yàlla gëm yonent bi gës gëm bis waxal lu baax waxal lu baax aw li yasmut aw li yasmut mu ni waxal lu baax aw yes yasmut da nga noppi muy bul wax ni bul ko firee ni ah, waxal lu baax da nga noppi boo mënul wax lu baax noppi kon moom danaan wax lu baax kenn mësu koo dégg ci lu kenn mus koo dégg mu wax wax boo xam ne dafay déranger pas-pas ndax am na ñoo xam ne ay kilifa lañ ñu ngi ci réew mi waaye heure bu ñu génnee rek dafay sorti génn rek wax loo xam ne jam na nit ñi ci nga wax attaqué sëriñ jàmbur nga wax attaqué attaqué kilifa jàmbur nga wax attaqué président nga wax attaqué euh, euh, opposition bi waaye moom kenn musu koo dégg ñu ni Mouhamed Bassir Kounta fay nañ ko wax ne ci président nangam wala wax na ci Euh, diw nangam wala wax na ci diw nangam loolu nag day waree ni moom dafa jàng yu daar la te lisaanaka in at labta yaakulka loolu su maam Seydi Hadji Malick wax Seydi Hadji Malick nee soo ko boyelee bàyyi wax lu la neex nee na yaakulka sa làmmiñ moo lay mujjee lekk ñu ne ko tax mu ne innahu moom sa làmmiñ bi def kalay si saral aadi dafa mel ni euh, gaynde goo xam ne gu jàmbaar la gaynde gu jàmbaar boo wasu bu mën a tëb lay doon fu mu la fekk jàpp kon li saa nekk sa làmmiñ da koy da koy ñoŋal ci ba ci lu baax. Uh-huh. pour mm-hmm. pour waxtu bi mu ngi dab. Mm-hmm. ni uh, lii lii dal ko nii li mm-hmm. mu ngi mel ni da parce que dégg naa ci mu jugee at na yàggul. kon mu ne ne muy toog waxtaanee kon nañ leen jël ci yàlla xam ne dee ñu ñëw. kon dafa nekkoon loo xam ne lu ko lu sentiroon la. léegi léegi rek maa benn vidéo bii Serigne Cheikh gaañoo mu ni ñun ñëpp nañu waajaat. loolu la njëkk a wax ah wax parce que. Euh, nitu yàlla nitu yàlla. nitu yàlla dee dee dina ñëw di bette. Mm-hmm. waaye am na ñu bëri ñoo xam dee du leen di bette. parce que ñoom fu ñu toll ñu koy waajal. Ah. xam nga dee une saa soxna dafa toog benn bis mu ni mu ni damay laaj kan moo fi mën a waajal dee ba dee du ko bett nan la ñuy waajal dee xam ko ni benn saxaaba bu ni mm-hmm. man de. su ma dundee at bii damay jàpp ne at bii ñëw doo fekk mu ko yow dee dina la bett keneen ne ko man de su ma dundee weer damay jàpp ne weer bii di ñëw doo fekk mu ne ko yow dee dina la bett keneen ki ne ko man semaine bii bu jeexee damay jàpp ni balaa moo jeexaat ma paas mu ne ko dee dina la am ku ne ko man bis bi tey damay jàpp ni fekk mu ne ko yow dee dina la bett am ku ne ko man heure huit heures huit heures ci boppam balaa neuf heures damay jàpp ni damay faatu mu ne ko yow dee dina la bett ñu ne ko kon yënt bi nan la ñuy waajalee mu ni ko sa noyyi boo dugal jàppandi lu génnaat mu ne képp kuy def noonu nag dee du la bett moo tax ala sunu maam seen xaaji Maalik wax ko ni ala axiral anfaas yi daawin bi fikri yi ne mu jëm tollu noyyi bi ngay noyyi ne del sax ci di ko fàttali ndax booy fàttali ni man ba noyyi laay mujjee noyyi faatu kon ci lu baax ngay dëkk parce que dee innal mawta laa ya'tii illaa baxtatan dee du ñëw lul da laa bett fu mu la fekk nag moom da lay rey fu mu la mënti fekk da moo xam mu fekk la ci ci ci ci lu baax moo xam mu fekk ci lu bon bu ñëwee laa yu aqiru saatan wala yastaxdimu yàlla nee na dee bu ñëwee duñ leen may benn seconde boo xam ne amul yàlla mayoo ma réglé waat demaat àdduna liggéeyam mm-hmm. kon loolu moom ñu doon waajal dégg ndax fu mu toll ñu ngi doon waxtaanee wax naa la aaya bi ñu doon wax léegi rek ci vidéo bi mm-hmm. ni euh, euh, walakum fil ardi mustaqarrun wa mataa'un ilaa hiin mm-hmm. ndax ñu ngi koy préparé naan adduna bi dañ fiy nekk nii rek waaye saxuñu fi. saxuñu fi dañ nekk nii rek passe rek euh, boo xoolee mag ñu baax ñi ni ñu ko doon misaalee dañoo misaal adduna ni moom ku doon tukki la di jéggi benn pont. maam sëñ Tuubaa na ko. la di jéggi benn pont. Mm-hmm. maam Borom boo boo fekkente ne pont boobu nag dañ faa bëgg a sax. Mm-hmm. bëgg fa tabax kër mm-hmm. bëgg fa tabax takk ay soxla bëgg faa def lépp loo xam ne da koo bëgg a def nee na soo moytu tukki bi du àll kon. dañ jàppee àdduna bi jéggikaay rek. kon kon Ahmed Bachir Kounta kon moom comme ça moom métier journaliste bi gën a wax ci moom. Mm-hmm. kilifa bi nga xamante ni euh, li mu nekkoon nangu daal en même temps yor métier bi. Mm-hmm. kon am nga lu mën a roy ci moom ci métier journaliste bi. bari lu ñu mën a roy ci moom bari dama jël dama jël. Mhm. nitu daara teg fële. waaw mais boo indi indi nga xamante ne. boo jëlee métier rek waaw boo jëlee métier rek nga bàyyi nga génnee diine ji teg fële. maanaam ni doon doxalee métier bi lu ko war la. waaw diine ji waaw lu gi nag moom tamit moom moo moo ko. moo ko opté moo ko opté jël ko ni man lii maa ko bëgg a doon. Mhm. nekk journaliste te journaliste damay wax ni euh, daanaka ñëpp ñëpp ay journaliste lañ. Mhm. yàlla ay journaliste la yónni woon

mooy su bu ñu jëlee benn information. Mm-hmm. ñu jël information waxee ko comme ni mu amee. Mm-hmm. waaye léegi Sénégal da ngay gis journaliste boo xam ne dafay jël benn jour benn information. da ci da koy taw yi yokk ko dañuy koo am ne fa xasalu tax tànk bi xollee ko mm-hmm. mu ni diw nga doon génn këram jëkkër jekku tulli mu daanu damu jaaree fa dee. fekk moom moo fa xasalu kon nag moom kenn su koo dégg mu wax ci journal rawatina li nga xam moom mooy métier mus cee def lenn loo xam ne ñu naan wax li may wax parce que yenn saa yi ñu dégg la micro nga wax sa wax la nga wax ñu dëpp ko ñu sëñ bi lii la wax wala diw lii la wax fekk yow la nga wax waxuñu loolu loolu da ci da ciy bàyyi xel dañuy profité nag di wax mboolem kuy journaliste rek na nga xool sunu baay ji di sunu baay Ahmad Basir Kunta mhm. métier ko fonkoon la métier ku ko yaataloon la waaye ku ko bëggoon la waaye ku doon doxal la ci li nga xam ne moom la ko diina bëggee kon mbokk yi loolu rek lañ doon indi suñu jaal ci euh, dëj bi di ko ñaanal yàlla nag euh, na yàlla xare ko àjjana yi gën a kawe yal yàlla dëkkal ko ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ak maamam euh, ba nga xam ni moom la yaakaar moom moo nekkoon wasilaam di maam bu kunta ziar leen bu baax di ko jaare waa Njaasaan ñëpp nag di ko jaale mboolem këru diine yëpp di ko jaale mboolem koo xam ne yaa wax asalaamaaleykum laa ilaaha illallaah. Fane mhm. Muhammadan Rasulullah sallallahu wa sallam. mi ngi noonu Ama Samb ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci témoignage boobu nga xam ne mun nga def xamante ni kilifa diina la waaye tam xamante ni euh, nitu presse la woon koy jaale um, waa presse yëpp ñu ngi lay koy jaale bu baax a baax. Mhm. di ko wax yàlla ko yàlla xare ak ñeent yeexee ñu. Euh, ni euh, ci benn bés am bànneex bànneex mujjee doon naqar waaye tamit ci benn bis mën nga cee am mbégte mbégte mujjee doon nattuwaay ci benn bis mën nga cee waaye tamit tey loolu loolu la ñu xëyee ñun tey dañoo xëy ñàkk ñun umma islam bi yëpp dañoo xëy ñàkk suñu sëriñ boobu suñu papa di Thierno Ahmed Bachir Kounta di ko ñaanal yàlla ko yàlla xale ajjante yéen yàlla su koy ci kawam nga xamante ni kilifa diine yi xamante jiitu nañu ñi ci deseen yi yàlla leen fi yàlla bàyyi ba ci kanam a kanam a soxla nañ leen trop da Sénégal mi commencé wéeg damay faral di ko parce que euh, borom subhanahu wa taala day xool ñu baax ñi rek mu jël leen euh, yóbbu leen kon nag ñi fi des nga xamante ne ñoom ay royukaay lañ suñu kon dañuy ñaan yàlla yàlla na fi yàlla bàyyi ba ci kanam a kanam ci barke yonent alayhi salaatu wasalaam li leen leen indiloon suñu njaal comme ni ko Omar waxee di jaale jaale euh, waa Jaasaan yëpp waaye tamit waa presse yëpp ñu ngi leen di bu baax a baax di leen jox eh, dig daje ci émission taaru Guinée ji incha allah rabbi te lii tamit yàlla nañu ko yéex a def ci ci biir studio bi waaxiru daawana an alhamdulillahi rabbil aalamiin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu